pouvoir. Ouais. Euh, ñëpp xam nañ ni processus la. Mm. day tàmbali di am ay actes yu ñuy posé ba keroog kiy gañe gañe ba ñu taqal ko seen ba. fa la processus ba yem. waa ji jël dawal. donc ca mbindu ma. Hmm. mbindu ma mbindu ma ñu ubbi woon. ma ñu ubbi woon ba ca taqab seen ba. Hmm. lépp processus la. ci les listes yi di génn ci la ñuy def parrainage hmm. ci la ñuy génne ñuy dem ci la ñuy def campagne électorale ci la ñuy def ci la ñuy def te la ñuy def chaîne boobu hmm. li ciy cëru pouvoir exécutif lu néew a néew la su ma neexee sax ma ni amu ci cër ay hmm. car la ci am car waaw le pouvoir judiciaire moo ci ami cër ndaxte moom pouvoir exécutif mooy la alors. waaye bu dul ci mbind ma ca tàmbali ba. Hmm. ca door ga moom foofu rek la fa am ay car mooy woote ñu bindu ak lii ñuy def nii. waaye bu ñu bindoo ba pare. pare ñu ñëw jëli fiche. waaye à partir d'aujourd'hui hmm. pouvoir executif pare na ci processus bi. lu mu ci def très bien lu mu ci def rek hmm. dañ ko ko sant wala dañ ko koo defloo ka ko koy defloo. mooy le pouvoir judiciaire. parce que à partir de dorénavant. Hmm. à partir de dorénavant. oui dépôt yi ñuy dépôt. Hmm. pour mën a nekk candidat pour conseil constitutionnel lañ koy déposer conseil constitutionnel relève du pouvoir judiciaire amatul dara lu ñuy defati ak administration publique ak pouvoir exécutif. est-ce que comprendre nga. oui que euh, dans l'acte matériel. Hmm. des élections exécutif nag dañu fa nekk di waxtaan ak di politique. foofu dañu fay politique. bu ñu jógee ci conseil constitutionnel. oui qui relève de l'ordre judiciaire. conseil constitutionnel moom mooy wax après kii bokk ak ki bokk. conseil constitutionnel mooy wax après ki du kii bokk ak ki dul bokk ki matal ak ki matalul bu ñu jógee ci conseil constitutionnel élection yi bu ñu ko defee. Hmm. Hmm. résultat yi. résultat yi résultat yi. pouvoir judiciaire moo koy connaître ci intervalle bu ndaw boobu rek. Hmm. ci la administration di ñëwee mooy ce qu'on appelle le jour du vote le scrutin. Ouais. ça c'est l'autorité administrative. préfet gouverneur ouais. sous-préfet et cetera. Ouais. Euh, les fonctionnaires. Euh, les les enseignants surtout pour les chef de bureau de vote. parti boobu rek la ci am et ça c'est le déroulé te loolu amu ko moom rek da koy bokk ak ñun. parce que plénipotentiaire parti yëpp très bien dañuy am suñu représentant ci bureau de vote yi kon donc c'est une collégialité hmm. moom lenn rek la ci moom exclusivement mooy ci mbinduma est-ce que comprendre bokk ak kadul bokk comprendre nga ak kay ak kadul gañee ak kañuy proclamer kañuy proclamer yoonu nekku ci seen lay wi dëgërut kon te lay wi dëgërut kon donc lay wañ jox no très bien d'ailleurs d'ailleurs soo dégloo le responsable de leur communication ni mu waxee dafa lay leer ni euh, c'est avec beaucoup de gene hmm. euh, que lay waxee ni lii bokkul ci ay prérogatives est-ce que nga waaw maanaam li lay olof Njaay naan raxas ndax mu far bën mais loolu lépp dafa lay expliquer benn affaire mooy euh, lakk bi ñu def mooy dafa am benn explication ou benn analyse du point de vue politique mooy maa ah. ngi doog xam ah. bi ma defee mes croisement fertiles lan moo tax ñu dàqoon processus parrainage bi. bu ngeen ko mooy bi ñu ko njëkkee dàq. très bien dat ba. kon ñoo ko ñoom lii lañ doon ruumalaat ci suuf pour jéem a balaa ñoo ubbi joxe fii ci ñu génne Ousmane Sonko en catimini ci ci fichier. fichier bi. te parce que bu ñu ko defoon août ba ñu waxoon ba ñu njëkkoon a wax. xam nga dàqaat nañ ko fi lu mat weer. bu ñu ko defoon période boobu boobu Ousmane mu ngi ci fichier bi kon ñoom peut-être ils avaient besoin du temps pour mën a def seeni affaire du point de vue administratif. ba génnee Ousmane ci fichier bi doo ko wax gars yi nag ñëw leen jël si fiche. te génnee nañ ko. non d'après ñoom li ñu wax. waaw xam nga génnee nañ ko. waaw d'après ñoom li ñu wax. xam nga loolu moo lay expliquer parce que déjà euh, DGE. moom yoonam nekku ci et cetera mais léegi nag moom euh, pour ñu mën ko defloo hmm. parce que n'oublions pas qu'on est dans am dogal kayit donc ñoom euh, reporté bi ñu reporté ce n'était rien hmm. pour que du point de vue administratif ñu lijjanti pexe yaa ngi fàttaliku c'est Abdou Aziz lijjanti ay pexe ba mun a am kayit boo xam ni comme on est dans le pouvoir hiérarchique l'administration publique c'est le pouvoir hiérarchique sa autorité bu la ñëwee joxub kayit. pexe nga et selon pexe dafa euh, sax dafa ne on a reçu des instructions. très bien on a reçu des des instructions kon donc moo tax ma ni la d' abord dans la forme dans la forme. Hmm. lii tooñ la. munuñ ñoom euh, munuñu weesoog Ousmane Sonko. Euh, xam nga nu ma ko mën a expliquer cest dire que. Hmm. ñoom ñoom ñoom man bu ma bu ma ko dee calculer. lii lépp xam nga lu tax. lu tax seen yelwaan moo këpp. seen yelwaan waaw dafa këpp nguur gi bu ma koy analyser xam nga gis nga Thierno Diop. waaw euh, day faral di wax. Euh, waajooju ma jël sama mën naa nekk bi nu mu tuddee di sax te mu nekkoon ancien basketteur te nekk candidat ah, Ndonga Ndiaye waaw waa nguur gi léegi nag dañoo nekk ci ndongo njaay <laughs> xam nga la mooy ndongo njaay ndongo njaay waaw de yàgg naa dégg muy tudd ndongo njaay moom léegi nag nguur gi waaw moom da koy sarax baa mu tibb <laughs> waaw léegi nag sa moom nguur gi tollatuñ ci sarax ñoom dañuy tibb par force xam nga bëri da ngay am dualité da ngeen may sarax mais fii sarax xam tax parce que nguur gi bu ma ko dee analyser hmm. Cyril dafa këpp moo tax léegi dem nañ ba amatuñ ci sago léegi dañuy tooñ de manière flagrante. tooñ waaw c'est-à-dire que mënuñoo bañ a bañ a tooñ ndax seen yelwaan dafa këpp. est-ce que par léegi nag léegi nag tooñ bi nag par force la léegi dañ koy tooñ par force maanaam maanaam dañ lay dañuy dañuy simplement. c'est-à-dire que pour pour pour man ñoom. Hmm. dans leur plan su ma ko calculer à l'analyse mën naa juum nag ah comme c'est souvent le cas c'est-à-dire que ñoom. dans leur schéma peut-être ils n'avaient jamais prévu d'arrêter Ousmane Sonko mmh. parce que tant que arrêté woon Ousmane Sonko ñëw yii ñu bëgg yëpp day mën a nekk mais peut-être je sais pas ban dérèglement moo am ci seen système ñoom ba ñu jàpp Ousmane Sonko te ça a été l'erreur la plus fatale pour le camp xam nga jàpp bi ñu ko jàpp bi muy erreuru gouvernement bi parce que boo ko xasee ba jàpp rek lii yëpp day ñëw dugg si affaire contimence te yow tant que jàppoo ko yaa ngi ci doute bi xam nga dafa mel nii bu ñuy nappi. Hmm. boo sànnee hameçon bi. Hmm. nga sànn filet bi. xam nga dina tool beneen instant di nga jàpp jën bi. léegi dafay des ci yow. bu la neexee nga bàyyi ko muy calli calli bu la neexee nga xëcc ko boo ko xëccee da koy gën a xoj xam nga. léegi nag moom laay tuddee yolomal. ah ñoom dañoo takkoon buum Ousmane Sonko. mais daal koy yolomal comprendre mhm. en fonction de kii bi ñu daal koy xaw seere serré tuuti. en fonction de kii bi ñu waat koy bàyyiwaat tuuti. mais nag ci euh, projet bi. Mhm. du woon pour xoj ko parce que boo ko xojee rek le jeu est fini. oui te ñoom ñoom pour man erreur bi ñu def ñoom xaw ma nag lu leen ko defloo. Mhm. mooy nib bi ñu jàppee Ousmane Sonko. bi ñu ko jàpp noonu. très bien de juillet. nib boobu. moo tas ñoom seen programme yëpp ba nga xam ni léegi amatuñu moyen léegi lan la def dañuy tooñ en flagrance comme ça très bien parce que ñoom booy calculer seen mbëbët mooy Ousmane Sonko warul bokk ñoom dañ ko bëgg a àtte ñàkkal ba du bokk hmm. mais nag on est dans un état de droit boo koy boo ko dee àtte ñàkk sax mais da koy teg ci yoon yoon boobu la wax. très bien léegi nag yoon boobu Ismaïla Madior Fall loolu la wax. très bien moom laa lay wax. layal na ko wax ko très bien léegi moom laa lay wax ne contumace très bien moom laa moom li ci Daouda Mine wax li ci Sow wax. li ci Pa Moussa Sow wax. ay ñoom professeur Ngouda Mboub mu ngi leen doon euh, tontu démb sax d'ailleurs waaw non non c'est-à-dire que loolu c'est que foofu mooy erreur bi c'est-à-dire que euh, tant que jàpp ñoon Ousmane Sonko on était dans le droit. mais ñu jàpp ko ñoom ils ne sont plus dans le droit ils son dans la force est-ce léegi nag force nag moom affaire u jaay doole la est-ce parce que ñoom léegi fi ñu toll nii dañuy jéem a mbubboo yoon parce que on est dans un état de droit mais ñoom ñoo la gën a xam li ñuy def lu yoon mais affaire u jaay doole la. attention Youssou Ndour. Hmm. jaay doole baaxul ak ci lu mu mënti doon. ñu ngi mën ñu ngi jaay doole kon donc ñoom ils ont perdu. la bataille du droit maintenant il veut se repositionner ci bataille force ak doole parce que ñoo yore doole bëgg koo layee wala layam layamee wala hmm. laytaayee ay affaire yu yoon ak di invoquer affaire yu affaire yu euh, demee noonu pour man hmm. euh, ñoom seen erreur xaw ma nag lan moo fonctionné wul mais pour man ba ñu jàpp ko mais ñoom erreur bi ñu def mooy ñu jàpp Ousmane il n'aurait dû jamais le faire jamais le faire bàyyi ko en apesanteur mais jàpp ko moo tax ñoom seen stratégie mu nekk mu daanu léegi nag comme stratégie bi daanu na. Hmm. te ñi ngi dem ci élection te ñoom ñoo yor doole. Hmm. léegi ñoom doole rek nañ dese moo tax ñuy use doole. au vu et au su de tout le monde léegi ñoom ragalatuñ ci. comme ça n'oublions pas n'oublions pas. Oui. n'oublions pas celui euh, sama xarit dimbale jox. oui dimbale jox laa wax de. oui dimbale jox <laughs> euh, moom mi leen seefe bu leen fàtte 2002. mooy jaay doole yàgg na ci réew mi de dimbale jox. mooy bi muy voté très bien sama cousin la mais bi mu demee Fatick di voté. waay gars yi dañ ko ni amoo carte d'identité doo voté mu ne damay voté par force jaay doole te koo koy seen chef kon donc ñoom ci logique boobu nañu nekk kon tey bu ñu demee ba tey jii ñuy user doole. Hmm. te dimbali jox di seen chef te am nu mu ci taxawee woon kon donc ñoom camp bu ñu defee lii ñun jaaxaluñu. loolu mooy première chose première chose. loolu maa ngi koy jëmalee ci nguur gi. nguur gi première analyse bi analyse bi parce que fii dama koy def ci. trois analyses. première analyse mooy ci nguur gi dañuy tooñ dañuy jaay doole yu su Ndour de daan na wax ni jaay doole baaxul. ak ci lu mu Fatou Gueye nee na Sénégal doolee mën dëgg waaye yàgg-yàgg dëgg mooy mujj. Hmm. waaw kon boog euh, ñoom dimbale jox maa ngi leen di joxagum loolu <laughs> te euh, di wax askan bi. Hmm. Euh, ñoom boo koy xool ba ci biir seen pexe jeex. seen pexe jeex. ndax seen yelwaan a këpp ni seen yelwaan këpp mooy ñoom plan bi ñu bëgg a dawal nii. Hmm. Euh, àndut ak jàppoon Ousmane Sonko est-ce que comprendre nga. Hmm. mais jàpp ko de dana tax seen plan boobu yëpp ndërmeelu comme plan yëpp ndërmeelu. Hmm. léegi ñoom dañuy jël droit tege nee di jaay doole. boo waxee ñu jéem koo lay wala lay taaye affaire droit waaye ñëw ñoo la gën a xam. Hmm. li ñuy def sori na ak yoon tuuti. mais nag comme dañuy def yu fi ndongo njaay. ndongo njaay de na Diop nee na. dana la jox option danaan la danga may sarax. baa ma tibb kon donc des na ci yow. fii nag ñoom très bien fii nag ñoom. Hmm. ndongo njaay bi ñuy def ñoom. Hmm. joxaluñ la option dañuy tibb par force ñoom dañuy ñëw tibb par force joxatuñ la option donc mooy euh, deme na noonu bi ci des. mooy. Euh, par rapport ñaareel bi hmm. mooy ñun opposition. d' abord. Euh, ba ma ko ñaawloo euh, maa ngi topp ci tànku Abdoulaye Tine maître Abdoulaye Tine ICL moom laa njëkk a gis ci opposition yi mu ñaawlu dénoncé jaay doole bii ñu def Ousmane Sonko ba ma ko defee ba pare maa ngi koy feelu ñun góorgóorlu yi di dénoncé di ñaawlu li DGE def mais bu ñu paree loolu opposition bi il faut tey nag nañuy wane sunu conséquence wala suñu incon inconséquence. Hmm. gis nga yéen opposition bi déglu leen bu baax li ma leen wax suñu bàyyee affaire bi jàll waa DGE ne serait-ce que ci principe bi su yeboo ngeen xam ne on a perdu les élections avant l'heure ah oui xam nga lu tax. Hmm. parce que.